sëñ Maxtaar balaa ñuy ñëw ci wàllum ay rawxaani ak ilmu nujum si lu gàtt rek mhm. li ngay wax nii li koy dëggal mhm. ndax fan yëpp ñu ngi koy gis si réew mi ak réseaux sociaux yi la mhm. ñoo xamante ni dañuy mbubawoo lislaam wala mbubawoo tel tariqa wala mbubawoo tel tariqa te si deret ji nga wax ak ay ay ay luxus ak ay ay ay ay njabar si la ñuy dox te ku ne xam na ne lislaam dafa xëy njabar gontu jotawuñu dara te yàlla wax na ko walaa yuflihu saaxiru xaytu ata <laughs> si suratu taaha wallaahi njibarkat ak ku mu mën a doon fu mu mën a jóge du mën a am mukk li nga xamante ni moom moo di ndam <laughs> ndax léegi alal war na jar loolu wala koomu adduna wala war na jar loolu wala bànneexu àdduna war na jar loolu tamit yonente bi sallallahu alayhi wa dafa wax ci benn xadis bu siiw boo xamante ni jàng nga ko boroom xam-xam bi toog jàng jàng na ko di ma seetaan <laughs> mhm. moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wax ne itaqil maarima mhm. takun abada naas mooy tandakul yi xaraam boo ko defee ya di nga bokk si jaami yàlla yi gën wa arda bi ma qasamallaahu laka takun ahna naasi li la yàlla sédd doyloo ko boo ko defee di nga bokk si ñuy gën a omal mu waxaat ne wa ahsin ilaa jaarika takun muminan boo mu neen nga rafetal jëmale si sa dëkkandoo boo ko defee di nga nekk way gëm mu waxaa ne wa ahibba li naasi maa tuhibbu li nafsika takun musliman mu ne na nga bëggal sa bopp li nga bëgg li nga bëggal nit ñi bëggal ko sa li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit boo ko defee da nga doon jullit mu ne walaa tuksirul daxiika fa inna kasratul daxiika tamitul qalbak nee na nga bàyyi te moytu ndaku ree ju bëri ndax ree ju bari day wawal xol euh, dafa am ci biir wax ju lu am solo moom yonent bi sallallahu alayhi sa sallam lu mu wax yonent bi ne ne na nga doyloo li la yàlla jox. Mm. lim la sedd kon nga nekk ku oom. kon doyal amu fi doylu rek a fi ne. riche. maanaam nit ku riche richesse. Mm-hmm. Mm-hmm. bokk na ci nga doyloo li la yàlla jox. allahu akbar ndax Xasan yonent bi sallallahu alayhi ne. nit ki du dee lu dul wërsëgam dafa jeex. lu wër. su soo sa jeexee rek daanaka sa dund jeex na. macha allah sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. moo xam nag jamono jii ci réew mi ñoo xam ne. Mm-hmm. ñoom dañoo defe ne am am. mooy nga tuur ay deret jëfandikoo lu neexut yàlla walla nga di ko def maanaam njibar rek wala wala nga dem sax dem na ci ba gis nga asan léegi li tax mbir yi mu yéeme mu toll foo xamante ne nii jar na waxtaanee mooy dafa dem ba àgg ci foo xama dimension boo xamante ni tey da ngay dem ba gis ñu rey doomu adama allahu ngir alal am na ci réew mi hmm. jël bakk na doomu aadama wala ay organam ngir alal léegi nag asan def nga la nga def ba noppi am nga alal ji ci suufu yàlla si nga ko nar a dundee ndax xam nga ne loolu nga def gannaaw ba nga amee alal ya pare ndax say fan dana ko fekkee ndax say fan dana ko fekkee kon li ma la wax sànq li li li jar xam wala li jar a waxtaanee jamono ji asan mooy ñu delloo nit ñi ci yàlla mm-hmm. ñu delluwaat ci yàlla ñun ñëpp mm-hmm. ñu tuubal yàlla ñu delluwaat ci li nga xamante ne nii moom la ñu yàlla jox ñun mm-hmm. ummatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi moom mooy diin al islam mm-hmm. delluwaat ci li nga xamante ne nii moom mooy cosaanu mag ñi mm-hmm. képp koo xamante ne nag bàyyi nga loolu dem ci leneen du dul loola perte nga fii ci àddina te da nga perte ëllëg ci àllaaxira yàlla na ñu si yàlla musal sëñ Maxtaar soxna yaakaar naa kàddu yi am na